le 5 février 2023 ca arène nationale Kajoor production moo ñu fa woo Ibrahima Diop nekk ca bopp ba Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass le bordelais de Villeneuve-Saint-Georges moo war a jàkkaarloo nag ak Ama Baldé caatu Fallaye sëll bu ndaw bi borom Ama yaa yëngal pikin mbokk yi derbi bu ne mës na am ci làmb waaye derbi Fass ak pikin mooy derbi bi gën a mag looloo waral Ibrahima Diop ak Kajoor production ne làmb ji seen affiche point comme dong lañ ci wóolu ñoom lañu ciy àndal ñu dugg ci ruq yi ak war leen Gris Bordeaux war leen Ama Baldé naka la ñuy waajee ba ci biir bës bi ndaxte nag bës bi du bës bu ndaw te bës bu mag la kenn du ko cof jërë ngeen jëf internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar tey nekk jeudi 22 septembre 2022 ñu ñëw ak yéen si yenn kaay yi gars yi tey nekkuñu fi xam naa taw bi moo leen jàpp rek dañ koy njëkkee rek ak journal bu sunu lamb bi nga xamante ni rek xëy na di wax si li nga xamante ni moo di passation de service bi amoon démb fële B en sa ministère des sports mel ni nag tey ah, li ñu gis démb nag foofu bëriwuñu li ñu koy gis passation boo xamante ni tey dafa mel ni meeting parce que fu nekk la Sénégal jóge woon ñëw ah, ngir rek fekkee loolu nga xamante ni tey moo nekkoon passation de service boobu noonu yaakaar naa ne nag euh, Yankhoba Diattara bi nga xamante ni tey moom la ñu tabb ministre des sports bu bees nag dafa mel ni euh, euh, nee na daal mu ngi promettre pour nekk ministre du sport yëpp yëpp yëpp maanaam daal nekkal fi sport yëpp ah lépp lu ñuy woowee sport daal moom pare na pour taxawu leen gunge leen dooleel leen ni ko ki nga xamante ni tey moo ko moo ko fi jiitu woon. di Matar Ba defee woon ba tax na daal journal bi li muy xam ne daal mooy que ne forte affluence et des émotions moom lañ gis foofu noonu maanaam mbooloo bu bëree bëree bëree bëree bëri ñëw jóge fu ne ngir teewal loolu waaye tamit ñëw tamit ngir euh, euh, encourager waaye tamit féliciter ki nga xamante ni tey moo di Matar Ba ci liggéey bu mu am solo bi mu def ci làmb waaye tamit di di ñaanalaat tamit ki nga xamante ni rek moo di Yankoba Diatara yéen bi oyof ba lépp lu ñuy xaar ci moom rek ah mu mën ko motal li ñu koy wexee rek jëlee fi Matar Ba yem jëmale sport ci kanam a kanam te la ñuy xaar ci moom ku ci mel ni Gris Bordeaux nag àdduna ci ku ci mel ni Khadim Ndiaye ku ci mel ni Baka ba ci Sidi Diakhaté ñoom ñëpp dafa mel ni daal teewoon nañ loolu nga xamante ni tey moo nekkoon daje loolu noonu ñëw soutenir ki nga xamante ni rek moo di le ministre des sports Matar Ba bi fi jóge waaye tamit ñëw tamit ngir rek taxaw ki nga xamante ni rek moo di euh, Yankhoba Diattara moom mi nga xamante ni tey moo fas yéene nekk ministre des sports bu bees bi waaye nag dafa mel ni euh, Matar Ba daal wax na ci li nga xamante ni tey moo di résultat yi ñu am maanaam jàpp na ne daal lien yi nga xamante ni euh, am na ko ak maanaam tey njabootu làmb waaye wala nga wala nga ne njabootu sport rek yi nga xamante ni tey yaakaar naa ne ñoo fi nekkoon jàpp na ne daal looloo yombal liggéey bi waaye tamit dooleel bi nga xamante ni njiitu réew dooleeloon na ko ba mu mënoon a loolu noonu waaye ak lu mën a xew rek kii di Yankhoba Diattara moom feelu na ko rek nee na j'ai nag ñu ngi xaarandi daal ak lu mën a xew daal mu waa mën a répondre rek ni ñu koy mën a waxee rek mooy attente sénégalais yi waaye at rawatina nag monde sport waaye ba léegi rek ci biir journal bu suñu làmb yaakaar naa ne tamit ah, wane na ki nga xamante ni rek moo di Moustapha Gueye ah, nekk champion ndaanaan boo xamante ni te yaakaar na lu ne def na ko ci làmb moo tax journal bi da samp laaj ba xam ndax 13 ans après sa retraite maanaam bi mu bàyyee bëri ba tey lan la Moustapha Gueye nekk dafa mel ne nag fi mu toll nii moom euh, loolu lu ñuy laaj parce que yaakaar naa ne mu ngi Fass ah, nekk foofu noonu ba léegi rawatina Fass Ndakaaru am muy tàggat hmm, nekk fa loo xamante ni te yaakaar naa ne kenn dootu ko werante waaye tamit dafa mel ni def na lu tolloog vingt cinq victoire yoo xamante nii rek am na ko ci li nga xamante ni moo di bëri dóor bi waaye daal li si gën a fës journal bi wax xamale na ko muy maanaam la grosse déception face à Yékini ah mu nekk tamit loo xamante ni yaakaar naa làmb da koy bàyyi xel ba léegi combat boobu noonu ak Yaxya Diop Yékini la locomotive de face des attaques de koñ ah Issa Gagne dafay mel ni maanaam loolu tamit nekk na loo xamante ni slogan la woon boo xamante ni ñoom lañ ko doon euh, bàkkoo waaye dam li muy xamle rek mooy que ne euh, quel héritier pour Tafa Gueye de loolu journal bi di samp dafa mel ne nag tey Serigne Ndiaye de mën nañ ko citer si ñi nga xamante ni tey mooy ñi mu ko gën a jege sax si liñ mën a wax waaye ku si mel ni Forza ak ñeneen ak ñeneen ñu nga fa ñoo xamante ni daal am nañ yaakaar ne mën nañ ko doon loolu yëpp nag ci xalima Mamadou Koné la depuis New York City waaye ba léegi rek ci biir journal bi nga xamante ni tey moo di journal bu sunu xëy na tamit rek di wax ci équipe bi nga xamante ni rek moo di Colobane Mbooloo Colobane Mbooloo se porte bien noonu la ko journal bi bindee def nañ 18 victoire 10 défaite benn nul en écurie boobu nag yaakaar naa ne écurie la boo xamante ni tey du ñu ne am na ay mbër yu mag a mag a mag a mag waaye am ay mbër de qualité ay xale yoo xamante ni daal wane nañ seen bopp bu baax a baax a baax a baax a baax parce que yaakaar naa ne Ibou Afia nekk Boy Diouf numéro un bi nga xamante ni tey Toubatoul la dëkk fa nekk Boy Diouf beneen Boy Diouf bi tamit fa la nekk anti ah Colobane mbooloo daal dafa mel daal am nañ ah, staff bu baax parce que yaakaar naa ne Sowru moo nekk seen manager te kooku dem ku ko am xam ne ku yàgg la ci làmb ku xam-xamam màcc ci làmb jàpp na ne daal bilan bu ñu def bilan bu baax la parce que 10 victoire moom euh, macha allah ci écurie bu toll noonu waaye ak lu mën a xew rek ñoo ngi leen di encouragé di leen félicité rek ñu gën a yokk cere doon la ñeex te xam ne saison bi ubbiwaat na ba pare waaye beneen combat boo xamante ni tey taxaw na. muy diggante saawaalo ak ki nga xamante ni rek moo di euh, tas yaakaar bu xam sa cosaan saawaalo nag bawal mbooloo la nekk combat boobu nag ah Alioune moo ko taxawal mu war na combat bu neex a neex a neex a neex war a nekk nag le 12 février incha allah ah, nag yaakaar na ne combat espoir bu neex a neex a neex la Alioune Gueye moo ko kon nag yaakaar na ne saison de feu daal la ñuy wax nañ ñaan yàlla rek ah ñëpp mën a bëre mbër yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp le maximum daal mën a bëre incha allahu rabbi yaakaar na loolu daal dina nekk réussite ah dina nekk tamit avancement si lamb waaye leneen tamit lu nekk avancement si lamb mu war a nekk nekk lu simple boo xamante ni tey Jax production moo koy taxawal ah le premier octobre la war a nekk rek incha allahu rabbi 3 millions lañ def fii nii waaye gis naa affiche boo xamante ni tamit 2 millions 500 lañ def waaye ak lu mën a xew daal dinañ ci gën a am a jege si waaye daal Jax ouvre le bal avec 3 millions noonu la ko journal suñu lamb titre ci xalima bindee ci xalima Abdoulaye Dieye fële war a nekk nag fi nga xamante ni rek yaakaar ne moo di sa euh, euh, terrain gaal gi loolu lañ bind waaye ak mën a xew daal Jax moom ku ne xam na ne moom saison bi moom bu ubbee rek yaramam day tàng moo tax day takkar naa si waaye ak lu mën a xew daal ñu ngi xaarandi bés boobu noonu incha allahu rabi euh, nga xamante ni tey Jax moo ko war ubbi ak yeneen journée yoo xamante ni tey incha allahu rabi am nañ yaakaar ne ah dina ko dina ko taxawal ci biir saison bi moom Jax production ni ñu ko waxee rek le numéro un des promoteurs de la lutte sans frappe ah moom nekk nag loo xamante ni tey lu am ama am solo la noonu la ñu daal di def rek. daal di jàll si tuusu sunu lamb yi tuusu sunu lamb yi nag ki ñu si fësal mooy maanaam Gora Ndoye nekk le président des ñu ko waxee rek. no recondition de Matar Ba ah góorandoo yu mécontent dafa mel ni nag te moom góorandoo bi jiite jeune amateur yi ci ñàkk delloo Matar Ba si njiitalu ministre des sports waaye nañ koy waxee rek nul ne indispensable Matar Ba fekkoon na ay ministres de des sports yu fi nekkoon yu liggéey mu ñëw continuer liggéey ba liggéeyam fos ba Sénégal yëpp tey naw ko si yaakaar na ne loolu tamit lu ama ama am solo la li ñu def rek mooy féliciter ko rek ci liggéey bu am solo bi mu def ci làmb euh, ñaanal ko jàmm rek ah, yàlla ubbil ko bunt yi mu am leneen lu gën loolu noonu waaye ak lu mën a xew rek peut-être njàqare Sénégal yi mooy maanaam tey coupe d'Afrique coupe du coupe du monde bii di ñëw autant pour moi nga xamante ni daanaka ñaari weer si des moo tax Sénégal yu bëri jaax waaye am nañ yaakaar rafet njortu tamit que ni ministre bi fi nekk il sera à la hauteur des attentes Modou Lo rentre des États-Unis dafa mel ni ah, mel ni nag nii kii ah euh, depuis loor sax la ñuy mën a wax rek ya euh, tabaski avant tabaski ba tey mu ngi woon fële na nga xamante moo di sa États-Unis ah, nekkoon ci madame waaye daal dafa mel ni nag tey li ñu xamal daal mooy que ne ñëpp na fi nga xamante ni rek tey moo di si Sénégal la euh, loolu la biram ñi ngi confirmé ci biir journal sunu lamb sox bu ndaw Talfa combat promoteur noonu la ko journal bi waxee mu nekk nag combat prometteur autant pour moi la ko bi tuddee moo war a nekk nag combat bu neex a neex a neex a neex a neex combat boo xamante ni da daal dër bi lay nekk Pikine parcelle soq bu ndaw def na ay preuve am waaye Talfa ku ne xam na ne der la kon combat boobu noonu du mën a yomb oo nag boo xamante ni tey Manga moo ko woote moom mu jiitee lutte fële sa arène Adrien Senghor dimanche bi ñu jëm incha allahu rabbi ngir waxtaan ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy acteur làmb yi saison bi ñu jëm waajtaay yeeg yu demee noonu yaakaar naa ne dina am solo lool lool lool waaye tamit CNG war na xamante ni rek moo di waa ARELS ni ki tey a na solo lool lool lool ni ki tey la à dem na Pologne journal sunu làmb di xamal ci biir tuus yi Ndeye Adama Jali la war a honoré le 30 octobre fële ca stadium Iba Mar ki koy def nag du kenn ku dul euh, Mame Diarra Thiang bi nga xamante moo jiite Thiang nga xamante ni rek moo di la voix d'or la cantatrice à cinq noms ah ni ñu ko mën a waxee rek muy Ndeye Fatou Adama Jali wala au cinq noms ça dépend rek waaye ak lu mën a xew rek ñu ngi koy ñaanal jaam ak salaam moom mer Ndeye Fatou Adama Jali yàlla guddal fanam wéral ay cëram saa njàmbur fils de Modou Lo lañ ko tuddee rek nee na moom moom doomu tëngéej la ak parcelle ay nag def na baptême de forme waaye bëgg-bëggam mooy saison ren bi mu def lu tolloog 5 combats Yaxya Joob Yékini moom fële ci Ndangaan la war a ubbee saison bi 15 16 octobre incha allah rabi teg fa mise 3 millions dafa mel ni nag leeral yi loolu moo si gënoon a fës di ñaan jàmm si Sénégal di ko ñaan si àdduna bi di ñaan na euh, gàmmu gi nag ñu jublu ñu dem si si jàmm ak lépp lu fa ñaan yàlla nangul ñu ko di jox ñëpp rendez-vous ba suba ak jàmm incha allah rabbi le février ca arène nationale Kajoor production moo ñu fa woo Ibrahima Diop nekk ca bopp ba Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass le bordelais de Villeneuve Saint-Georges moo war a jàkkaarloo nag ak Ama Balde caatu Fallaye sëll bu ndaw bi borom Ama yaa yëngal Pikine mbokk yi derbi bu ne mës na am ci làmb waaye derbi Fass ak Pikine mooy derbi bi gën a mag looloo waral Ibrahima Diop ak Kajoor production ne làmb ji seen affiche point com dong lañ ci wóolu ñoom lañ ciy àndal ñu dugg ci ruq yi ruqaati war leen Gris Bordeaux war leen Ama Baldé naka la ñuy waajee ba ci biir bës bi ndaxte nag bés bi du bës bu ndaw te bës bu mag la kenn du ko coof Mbaye Dia Diop maa ko fiir ku leen ñamal Mboor Mbaye Ousmane Ngem Mbaaw fii lañ jaar